xamante ni kon ñoom ñi ca loru dañ doon amal benn excursion ca ilo Sarpan ni ñu koy faral di defee fan yi lee weesu brigade nationale sapeur pompier dina dellu siwaat ci yëf yi yan anam la am ak it opération de sauvetage yeeg seen njeexital tey ji ci euh, suba beneen ponk ci xibaar yi bokk na ci wàllum pétrole bi ñuy euh, njortu ni euh, boo moyul njëgu euh, barigo bi dina yokk ci Sénégal ak ci àdduna wërngal këpp ndax jafe-jafe yi am ci wàllum hydrocarbure ci golfe ba rawatina Arabie Saoudite fii di Sénégal nag Cheikh Diop mi yore syndicat bi yor kon bokk CNTS jàpp ni état bu Sénégal li mu war a gën a def mooy fay secteur pétrolier bi ñetti téeméeri milliards yi mu amal ci wàllum bor lu ñeel wàllum énergie faaw ñu gën a jëfandikoo sukkandiku ci wàllum naaj bi lijjanti jafe-jafe yooyu le mbokk yi loolee tënk la nes tuuti ñu yaatal ko ginnaaw bañ la nuyuwaatee ba noppi mbir mu tiis moo xew démb ci ngoon fële ca île de la Madeleine benn gaal moom moo suux amoon lu ëpp kon fanweeri doomi aadama ci gaal boobu la ñeent ñi ñoo ci ñàkk seen bakken am na fanweer ak juróom-ñaar yu mujjee dal di mucc amul kenn ku mu di ab bilan bu tukkee ci ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye moom mi nga xam ne mi ngi woon foofu sax nag ñi am ay gaañu gaañu ñu ngi leen yabal fële ci hôpital principal bu Ndakaaru na ñenn ñoo xamante ni euh, nekkoon nañ fa tey jile ci suba euh, ñi réeroon jot a feeñ ak njabootu ñenn ci nekkoon ci gaal bi foofule Ibou Diouf mi ngi fa Ibou maa ngi lay nuyu. waaw lan la ñu mën a jàppandi jamono ji foofee ca marine nationale. waaw li fi gën a soxna naata gannaaw ma ngeen nuyoo bi ñu xëyee nag euh, fi nga xam ne mooy Soumbédioune lañ njëkkee ngir saytu rek. lépp li nga xam ne moo bàyyeekoo ci jëye jooju dal ci askanu Sénégal ci suba nag ah, teewe nañ sax ñeen ci ñi jàppoon ne rek ñoo desoon ba bu ñu yegsee foofu nag soon nañ ci benn agent ah, bu Eaux et Forêts ak ñeent nit soo xamante ne dañ jàpp ne ñoon doon dawal gaal gi loolu tax nag bi ñu sakkoo ci ay xibaar ci kilifa yi ñuy xamal ne jamono ji ñi ñu jàppoon ne dañu réer ñëpp gis nañ leen bu weesoon nag ñu ci ñàkk seen bakkanam ñu ci amoon ay gaañu gaañu jamono ji ñoom amatul kenn ku def ci biir géej gi leneen li ñu mën a jàpp nag mooy bi ñu jogee foofu fi nga xam ne euh, parc bi Île des Madeleines ci lañ jubal ñëw fii marine nationale fii nag jamono ji euh, naata ñu ngi xaarandi rek waa ASMAR di ëpp autorité chargée de la sécurité maritime jamono ji ñu ngi waxtaan seen biir euh, taskati xibaar yi nag ñu ngi xaarandi Euh, di euh, taataan rek ay xibaar xam naa buñ ci noppee rek dinañ jàkkaarloo ak ñun am ay euh, xibaar yu ñu baaxee jamono ji nag li fi gën a fës mooy ministre de l'environnement jaar na fi wax ak ñoom mais moom demaat na ñoom seen biir nag ak kuréel yi nga xam ne ñoo seq ASMAR di haute autorité bu sécurité maritime ñu ngi waxtaan. xam naa fi ak simili rek naata lu ci ruusee dinañ leen ko baaxee bu soobee yàlla. jërëjëf ibu Diouf nekk en direct foofee ca marine nationale suñu yeneen ndaw tam ñu nga fële ci hôpital principal bu ndakaaru ndax foofu la ñu yebal ñu am ay gaañu gaañu ginnaaw gaal boobulee suux lu ci mel ni Maguette Souare Diallo ak Modou Fall ñoom nag xaw na ñoo am ay jafe-jafe yu néew ndax euh, waa gendarmerie ñoom ñoo leen téye jamono ji ndax dañ leen di laaj euh, laaj naka la ñu def ba dugg ci biir hôpital boobule euh, njabootu ñi ca loru tamit. tamit ñoom ñu ngi foofu lee du ñàkk kon dinañ ànd ak ñoom ci euh, kanam tuuti ginnaaw ba ñu yëgee euh, naqar euh, wowule ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye moom dem na fële ca parc national des îles de la Madeleine ndax foofu la gaal bi bàyyeekoo fii ci baie bu Soumbédioune am na it yeneen kilifa muy civil wala militaire nekkoon nañu foofu Aly Ngouille Ndiaye dañ koy déglu démb ci guddi ci micro Chérif Dia. ginnaaw bi yore groupement de sapor pompiers daf moo woo yëgal ma ne dafa am ay touristes yu demoon ci île de la Madeleine euh, bi ñuy fa demee nag malheureusement bi taw bi bëree ñu coincé foofu euh, il se trouve que am na ñoo xam ne sax danoon bëgg force di ñëw euh, seen pirogue bi daal di chaviré depuis nag boobu bi ma ko waxee aussi ma avisé président de la république ñëw na fi léegi nii pour xool situation bi ministre Sidiki Kaba ñëw na ministre Aminata Mbengue Ndiaye Euh, chef d'état-major gendarmerie euh, armée de même que le directeur général la police ñoom ñëpp ñëw nañ en tout cas kenn ku ci nekk indi sa concours pour ñu mën a euh, xettali Sénégal yooyu nekk ci difficulté xanaa damay bàyyi colonel bi mu jox leen situation précise parce que moom booba léegi mu ngi nekk ak ñoom di jokkoo ak. ni ko ministre bi waxee kon ay opération secours maanaam wàllu démb ci guddi ba léegi ñu nga fa waaye jamono ji jeex na bu ñu sukkandikoo ci euh, commandant euh, kii ci lieutenant colonel Pape Ange Michel Diatta moom mooy commandant compagnie secours ak incendie bu brigade nationale sapeur pompier moom nee na nag képp koo xam ne. yaa ngi woon ci euh, gaal boobu boobule jël nañ la xool sa wér gi yaram bu ko jaree ñu yebal la ca hôpital lu ci mel ni hôpital principal euh, bu ndakaaru nee na ñi demoon euh, foofu leen nag li gënoon a tax yëf yi metti mooy taw bi fa amoon ak ngelaw li tax na ba mënuñu woon a foofu foofule tey jii ci suba lañ leen mujjee daal di jël moom léet lieutenant colonel Pape Ange Michel Diatta ñu déglu ko ci micro Modou Fall. ne peux pas vous donner exactement les détails, mais bon, on pourrait penser qu'avec euh, voilà, la pluie qu'il y a eu, le vent, la houle, euh, il y a eu des soucis avec euh, probablement l'embarcation qui devait les ramener euh, sur Berge. Euh, donc ces personnes sont restées piégées sur l'île. donc ce qui fait que. di jéggalu mbokk yi mu di élément en français du ñàkk kon dinañ ko déglu ci yeneen jotaayu xibaar ni mu gën a yaatoo commandant brigade secours ak incendie brigade nationale sapeur pompier di lieutenant colonel Pape Ange Michel jaata yëf yooyu xew nag démb mu di njomme ci îlot Serpent île de la Madeleine foofee bëri na ay nappkat yoo xam ne ñoom ñoo fa njëkkoon a dem bàyyeekoo ci Soumbédioune ngir wàllu ñi yëf yi daal di téye foofule na ay nappkat ñoom tamit nangawuñu wax. tax ba léegi euh, liñ fa jëlee li ñu mën a jàpp daal mooy gilet de sauvetage boo koy sol euh, mën na laa sol ci njombe yu ni mel waaye doyul ndax ñu bari ñi nga xam ne dañoo faatu sax dafa mel ni euh, mënuñu woon fay ñu déglu kii di Adama Meng moom moo jiite nappkat yi nekk foofee ca Soumbédioune muy jeune pêcheurs yi nekk foofule ñu déglu ko. tey lii ba mu dalee ci kaw ñun bañ ko dégloo mënuñu lu dul ay doomu Soumbédioune jël sunuy gaal sunuy essence sunuy moyen bopp dem pour dimbali ñi fa nekk. parce que képp koo gis rek boo si amul njaboot am nga ci rakk bu nekk ci kaw wala dëkkandoo bu fa nekk loolu lañ doon bañ mu metti yàlla dimbali nañu nag ba ba ñu demee mettul parce que ñu si ëpp doole jàpp nañ leen teeral nañ leen si île bi mais leneen lu ma la mën a wax ñu teeral si île bi am na ay dee for nañu ay nit ñu dee teeral leen ci île bi sëñ bi wax dëgg yàlla duma a ko nëbb dañu ñu ñaan ñoom autorités yi ñoo ñu ñaan ne bu ñu joxe benn information boo xamante ni néew la muy gaañ seeni mbokk mais du yàgg dara du yàgg dara parce na du yàgg dara mënuma mënuma wax dëgg yàlla mënuma la wax lim mhm. parce que ay kaddu la ñun lébu kaddu la ñu xam kaddu lañ ñu wax ñu delloo leen kaddu kon kaddu boobu dañ koy dañ koy jenc ba keroog muy changé xama ndax lan bëgguñu ko ñu jam mhm. bu du woon ñun xama ñan ñoo fay des mooy ñii nga xamante ni tey jii mën naa la wax xaw na ñu mën a fay tuuti gilet sauvetage yi waxuñu la boo ko takkee doo dee soo ko takkee mënoo féey ngelaw buy ñëw boo ŋaangee ndox bi day dugg sa jémin te bu ndox bi dugg si jémin bu yàggee sa biir bi day gonflé bu gonflé sa nopp yi lay jénnee da ngay dee tëmb nii loolu mooy rey nit ñi. nekk ngeen fa ñaata waxtu ñëwagul am na ñoo xamante ni ñëwaguñu. parce que bi ngeen demee di sauver nit ñi. waaw waxtu ngeen fa nekk yéen pêcheurs yi ñoom ñuy doog a ñëw. plus de une heure de temps presque dem nañ fa parce que ñoom doo leen woo ñu débarquer seen camp oto automatiquement rek ñëw ma loolu mënul nekk. yow mi fi nekk sur place yow yaa njëkk a def yu njëkk yi ba pare après ñoom bu ñëwee fekk si la si loolu kese la xam nga mais ñoom sapeur yi wax dëgg yàlla ñoo ngi leen di jaajëfal ba ñu ñëwee tamit gis nañ seen taxawaay def nañu liggéey bu rafet ñoo ngi ñaan yàlla tamit état yokkal leen seen i matuwaay moom Assane Mbeng di ab nappkat tey jile ci suba lañ ko jël waaye démb ci guddi am na keneen mu di Assane Diop moom tamit daanaka ci wàllum gilet de sauvetage yooyu lee la wax ak yeneen matukaay yu ñu war a jël ngir bañ lu ni mel daal di am ñu déglu ko ci micro Chérif Dia ak Gervais Yaw. waaye moo tax ma asamaan si balaa am une heure deux heures taw bi dina ñëw su fekkee da nga doon préparé da préparé loolu lañ def nga bàyyi ko da ngay si taw bi fekk si. bu bëree ñu wax nag sax parce que gilet gilet dafa bokk rek ci boo boo mënul géej nga di soog dina la protéger ci kaw leen léegi mag yow suñu doon fee nga yor gilet man yoruma gilet man su ma sonnee xam nga du am lu ma tenir mais yow mi yor gilet boo sonnee di nga mën taxaw gilet bi ba nga reprendre ak continuer bu dee bu dee man nag damay ji rek loolu moo tax juré am njariñ foofu euh, waaye nag sécurité pêcheur mooy avant ngay dugg si géej war nga mën a féey il faut géej moom bokkul ak dex géej bala nga siy dugg ay sorti ay yi def yëpp nit ñi war nañu mën a féey ñu euh, fàttali rek ni euh, gaal boobule daal di suux démb fële ca îlot Serpent euh, tax na ba ñeenti doomu dama daal di ci ñàkk seen bakken fanweer ak juróom-ñaar ñoom ñoo ci rëcc bu ñu sukkandikoo ci bilan final bi tukkee ci ministre de l' intérieur di Aly Ngouille Ndiaye mu di ay nit yoo xamante ni dañoo demoon excursion foofule démb ak ngelaw lekk géej bu sàmmaraax bi moo tax ba seen gaal boobule dal di suux ci ndox mi ba waral jëyee junni mel ñi nga xam ne ñoo ci am ay gaañu gaañu municipal bu Dakar euh, seen i ñu ngi foofule euh, du ñàkk xañ na laata ñuy tàggatoo ci xibaar yi ñu jokkoo ak suñu ndaw yi nekk foofule euh, muy Maguette Soiré Diallo ak Mamadou Fall ak jafe-jafe yu ñu am foofule ñu ngi leen ko doon wax sànq kii di lieutenant colonel Pape Ange Michel Diatta bu brigade nationale des sapeurs pompiers mi ngi dellu si waat ci opération de secours yi maanaam wàllu gi niñ ko defee démb si guddi ba léegi ak ni ñu taxawoo ñi nekkoon ci gaal boobule ñi ci jot a rëcc ak seeni njaboot ñu déglu ko Je ne peux pas vous donner exactement les détails, mais bon, on pourrait penser qu'avec euh, voilà gu ma leen wax bu baax a baax a baax lépp loo xam ne rek euh, jëm na ci yan ci ay détails waaye xam ngeen nii ak taw gi amoon ak it li nga xam ne ni mooy ul bi amoon na rek ay jafe-jafe ngir kon ñu mën a euh, taxawu nit ñi bu baax te ci jëlee ñenn ñi ci euh, ndox mi. waaye euh, nit ñooñee nga xam ni euh, desoon nañu te sax ñu jotoon kon euh, piège wu ci île bi am na nag liggéey boo xam ne nii def nañ ko ci waaye di wax rek ni temps bi ni mu tëddee woon ak guddi gi nga xam ni sax it ba tey it nekkoon nañu ci xawoon na compliqué mbir yi nit ñi it ñooñee amoon nañu ab traumatisme ndax xalaati leen rek jafe-jafe ñu nekkee woon te sax loolee amoon na ay problème ngir kon ñu mun leen a évacuer ni mu waree. waaye jot nañu waxtaan ak uh, nit ñooye nga xam ni uh, ñoom ñoo rek loolu ci uh, mbir mi ba tax na kon jël nañ matuwaay yi te it sapeur yi taxaw nañu ba kon lépp rek fu mu toll nii ñu def ko si suba si nag am na it ay plongeurs ak yeneen secouristes yoo xam ni teew nañu fi waaye it ab psychologue ngir rek kon assister leen bu baax a baax. marine nationale gendarmerie ci mboolem opération yi nga xam it ñu ko doon amal depuis démb taxaw nañ ci ni mu waree. waaye rek mu am ay conseils yoo xam it bëgg naa ko joxe xam ngeen ci nawet la ñu nekk te sax dënn bi dinay faral di jóg ba sax gis ngeen am na ay nit ñoo xam ni kon euh, jotoon nañ sax euh, faatu ci fan yi kon euh, conseil yooyu rek mooy jëmale ko ci pêcheurs yi ak ñi nga xam ni dinañu faral di jóg di def ay excursion comme linumel ni mel ngir ñu jëlit matuwaay yu mat sëkk di bàyyi xel li nga xam ni mooy bulletin météo ak lépp loo xam dina koy joxe rawatina ci marée yi ak ngelaw bi par rapport à et surtout par rapport à aux marées à la ñu ngi ci ligne bi ak euh, ministre de l' intérieur Aly Ngouille Ndiaye le ministre ñu ngi lay nuyu. Eh, waaw ndax mën nga dellu si waat euh, ci ñiy seetaan ak ñiy déglu ci xibaar yi mujj euh, mu ñeel jëye joojule am démb fële ca Île de la Madeleine. waaw jërëjëf yaakaar naa ne li amoon depuis démb yéen a ko doon suivre ak seen niveau du groupe. Euh, démb effectivement ci bi tàkkusaan passé amoon na euh, jéey ju am fële de la Madeleine euh, bi mu amee sapeur yi bi ñu ko yéegee man ñu ma alerté vers vingt heures donc ñu ñëw également sur place ak le général Seck commandant la brigade nationale des sapeurs pompiers mu fekk fa également service ministère de l'environnement notamment le conservateur wax dëgg yàlla ñu liggéey ensemble ak euh, waa service euh, ministère de l'environnement yi nekkoon au niveau des îles pour di coordonner action yi bon au moment où on venait d'arriver euh, déjà ñu wax nañu ci rog bi mu chaviré am na ci ñu ñàkk seen bakkan puisque guddi woon na am na ci ñoo xam ne corps yoo xam ne gisuñu leen woon wala bokk nit ñoo xam ne dina woon dañoo porté disparu xamuñu woon ndax dañu faatu wala déet donc loolu moo doon bilan bi ba démb ci ba démb ci guddi donc ñu jëloon disposition kon ni condition climatique yi ne li gën a wóor daal mooy ñoom ñu fanaan foofu yóbbu leen lekk yóbbu leen naan yóbbu leen ay couverture euh, ba bët set nga xam ne bu ñu xëyee dañ leen mën a dana gën a yomb euh, ñu gis ña fa nekk yóbbu leen également euh, ñu leen wéttale foofu ci île bi ba boole ci sax benn docteur boo xam ne bii dana waxtaan ak ñoom ci ci ndax kenn ku ne xam ne lu mel noonu bu amee Euh, du ñàkk lu muy def ci seen xel donc euh, voilà donc loolu mooy disposition yi njëloon ci suba nag lañ continuer comme ni ñu ko prévoir opération yi bilan définitif yi négé mën nañ cee wax ñeent fukki nit ak benn la concerné woon ñeen fukki nit yi ak benn fanweer ak juróom-ñaar yi fii may wax yéen ñi ngi actuellement hôpital principal euh, prise en charge par le les du général Mame Thierno Dieng ñi nga xam ne ñi maintenant Euh, ñoom nañ fa ñeent lañ euh, ñaar yu góor ak ñaari jigéen ci jigéen ñi benn xale bi juróom-benn at la am euh, ñeent ñëpp ay ay doomu Sénégal la ci ñi nga xam ne ñi nag maintenant macha allah peut-être génn nañ ci am leen di ci ëpp ay sénégalais la te sénégalais yi rek dem nañ ci ñaar fukk ak ak ñeent wala am na aussi ay français ñu xayma leen ci juróom-benn. jamono ji monsieur le ministre mën nañoo wax ne amul kenn ku des ñëpp gis nañ leen. pour le moment amul kenn ku des te ñëpp ñëpp gis nañ leen donc constat bi évacué na leen ñi nga xam ne ay rescapé lañu si yóbbu na leen à l'hôpital Mm. jërëjëf monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur ak leeral yi mu indi ci ñi nga xam ne ñoom ñoo faatu mu nekkoon ñaari góor ak ñaari jigéen kenn ki mi ngi am juróom benn at ñëpp ay doomu réewu Sénégal la ñoom ñoo faatu kon ci euh, bato bo ci gaal boobu le niñ leen ko doon waxee sànq ñi ci rëcc dañ leen a yebal ci hôpital principal bu Ndakaaru Mamadou Fall mi ngi ci ligne bi ma Fall allo waaw Mamadou Fall ginnaaw bañ la nuyoo ba noppi eh, ñu ngi yebal foofu le ñu jot a rëcc ak eh, seen i njaboot ca hôpital principal. waaw naata ñu ngi ci hôpital principal waaye fi mu ne nii rek laataa ñu doon jógee hôpital principal fukki waxtu benn li ministre bi wax noonu moo di ñeent ñi desoon te la ñu seet si Soumbédioune ndax fukki waxtu benn lañ fa bàyyeekoo ñett ñi ñoo nekkoon mool yi doon dawal gaal gi kenn kii di garde côte bi. suñu kanam la ñu seeree ñu doon leen dugal ci woto sapeur yi yàpp ñu dem fële ca euh, marine nationale fii ci hôpital principal euh, rescapé yi jëlee nañ leen euh, foofu ca marine nationale indi leen na fii nga xam te ni moo di service d'urgence service d'accueil yi ñenn ñi nga xam ni nag ñoom ñooy wéyjur yi ñu ngi toog ñii ci morgue bi ñii ci kanamu service ñii di xaar kon seen i néew ñu ñëw ñeneen ñi itam di xaar fan la seen i ñoñ nekk ki nga xam te nag mooy bàyyi xale bi am ñaari at tudd Ana Ñang moom sànq jël nañ ko la mu wax ne na yëf yi dafa metti loolu ndax doomam kon des na ci euh, waax yi ndox yi ñu jëlaat keneen ci nga xam ni moom euh, wéyjur la ci ki nga xam te ni moom moo yoroon restaurant ba foofu sa Soumbédioune ñooñu tamit ñu ngi toog di xaar nee nañu euh, gisuñu ci liste bi nga xam te ni lañ leen yabal mu di pavillon France ba ñu duggee seen turu kon ñooñ googu lay gisuñu ko itamit ci nga xam te ni moo di morgue bi ñu ngi toog di xaar nekk ci jaaxle fii ci hôpital principal euh, naata nañ jàpp ni kon euh, wéy jur yi euh, victime yi ñi faatu ak ñi faatuwul ñu ngi toog ñenn ñi dugg di xool seen i mbokk yi nga xam te ni ay rescapé lañ ñenn ñi toog ci morgo bi di xaar nag seen i néew ñu ñëw ñu xam kon ñan ak ñan la waaye bi si leer ba leer moo di ana toll ci ñaari at moom kon bokk na ci ñi faatu ndax wéy juróom bu góor moo taxaw di jooy xamal ñu ko Mamadou Fall leerul nga dellu siwaat ci tuuti nga ne xale bi faatu foofule ñaar euh, ñaari at la am. ñaari at la am ana ña la tudd wéjuram bu góor moo ñu ko xamal moom mu ngi sax ci booru pavillon France foofee la taxaw. la amoon euh, ki faatu doom waaw wéjuram bu moo taxaw ci booru pavillon France moom ci la amee firndeel ni doomam boobu di Anna Niang toll ci ñaari at faatu na ndax yaayam la àndaloon ak ñaar ci rakam nekkoon ñett. waaye yàlla def euh, li gën moo di kon ana bokk ci ñu faatu jërëjëf Mamadou Fall en direct hôpital principal bu Ndakaaru ak néew yi nga xam ne foofu lañ leen yóbbu ci morgo ba ak ñi am ay euh, gaañu gaañu du ñàkk kon ci yeneen xibaar dinañ egsiwaat ci ni mu gën a yaatoo euh, ci njombe boobulee daal di xew benn gaal moo suux ci île de la leen ba ñeenti euh, nit faatu ci ñoom ñëpp nekk ay sénégalais fanweer ak juróom-ñaar ñoom ñoo ci rëcc ci jamono ji amul kenn ku réer dégg ngeen leeral liñ leen ci defaral sànq ba léegi ba léegi ci xibaar yi wax ci octobre weer bi ñu jagleel xeex lii di cancer bi jàpp ween fii ci Sénégal octobre lay doon mooy octobre rose waaye nag tax na ba ñu daal di daje ak benn soxna boo xam ne dafa amoon jàngoro ji waaye jamono ji wér na nee na daanaka fukki million def na ko ci euh, pàcc boobule moom dafay nëbb turam soxna soosule li ñu wax nag mu di euh, ci ndorteelu octobre dinañ tàmbali euh, kenn dootul fayati ci wàllum chimiothérapie muy cancer bi jàpp ween wala buntu bututu njurukaay ci muy xool ndax dañoo am cancer bi am déet loole lépp euh, dinañ ko def te duñu fay dara mu jàpp ni loolee euh, lu baax la ci ñi nga xamante ni dañoo feebar reportage Fatima Touré Lamine Mandia ñoom ñoo daje ak soxna soosule dama feebaroon dama amoon cancer maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. mu tuuti cancer doon lu mën a nekk fii ci Sénégal soxna si nag doon ki koy dëggal. bi muy xam ni sax dafa am feebar bi lépp mu ngi toll ci ñetti weer ci ëmb mu daal di feebar bi nag ba keroog muy mucc mu ñëwaat rek ci période bu metti bi mu dund. ma dem Dantec rencontré fa benn médecin ñu xool xool ñu ne ma léegi dañ lay defal cytoponction mammaire. bi ñu defee opération bi ñu def opération bi ba pare. donc ñu jël analyse yi yóbbu ko pour def anapat bi par la suite le résultat yi génn bi résultat yi génnee si lañ découvrir que ne c'est un cancer. cancer nag doon li nga xam ni rek dafa nekk feebar bi nga xam ni dafa cher ci wàllum pàcc. si je n'abuse pas man je peux dire que ne cure bi li ma daj sama traitement yëpp toll na à hauteur de huit à dix millions parce que moment boobu traitement bi c'était un million par cure te c'était des boîtes de taxotère. le boîtes ñaari boîtes yi nga daan jënd rek sa faisait à pratiquement un million. waaye nag muy gërëm jëkkëram bu baax bi nga xam ni rek moom jàppale na ko bu baax ba mu mën a wér ci concert bi lee. Euh, vraiment sama jëkkër dafa ma jàppale il était le premier à me soutenir. je me disais que je devais me battre parce que là moo marie est là mu ngi déployer tous les moyens pour que ma fu wér j'ai une fille de six mois et la besoin de sa mère j'ai mes enfants qui sont là. elles ont besoin de leur mère. Il y a ma mère qui est là, besoin de sa fille. donc il fallait que je me waaye nag annonce bi nga xam ni rek ministre de la santé def na ko ni léegi chimiothérapie ak mammographie di kenn dootu ko fayati fii ci Sénégal doon li nga xam ni rek dina gënal malade yu bëri yi nga xam ne ñu ngi dund ak cancer. lii bu ñëwee ça vient à son heure man j'ai eu la chance am ku ma jàppale ma mën a faju mais am na ñoo xam ne amuñu ko. ku amul loo lekk ku amul transport ku amul loo lekk doo am transport ku amul transport doo mën a dem faju ku mënul faju doo am moyen yoo jënd ay garab. lu toll ci 7000 jigéen fi ci Sénégal da ci am cancer nekk nag maladie bu metti faj waaye nag bu fekkee ni rek teel nañ koo gis mën nañ ko faj ci ni mu gën a gaawee. ci wàllum pàcc la ñuy des ba léegi ak tawatu hôpital régional bu Kaolack El Hadj Ibrahima foofu nag démb gouverneur bi dafa gontu ngir xool seeni tawat lan la waaye ñoom foofu bëri na ci liñ leen wax maanaam ay spécialiste ñàkk nañ ko ak matériel bu doy bi tax hôpital bi ñu yéegal ko ba ci niveau 3 gouverneur bi di Alioune Badara Mbengue joxe na kàddoom nag ne lépp luñ ko fa wax ci ay jàmbat dina ko tënk ci ab kayit ngir mën ko jébbal kilifay réew mi ngir ñu indi ci ay saafara Alioune Badara Mbengue di gouverneur bu Kaolack ñu déglu ko ci micro Ibrahima Diame ak Faly Gaye hôpital bi xam ne hôpital la bu nga xam ne yemul rek ci Kaolack région Kaolack lay accueillir di accueillir région kafrin même parfois sax région Fatick région Diourbel ak réew yi nga xam ne nii ñoo ñu jege nga xam ne du hôpital bu ndaw ah, am na nag ay effort yu bari yu nga xam ne nii Euh, responsable yi à commencer par la directrice de l'hôpital commencé nañ ko def état bi ànd ci ñoom mais nag xam nga loolu lépp dafa tombe ak population bëgg ñu jëlee hôpital bi niveau de yóbbu ko niveau trois nga xam ne euh, danañ fi mën a faj lu gën a bëri ci ay cas te duñu soxla ñuy dem ay Dakar ak yooyu mais loolu pour cela dafa am fu mu war a jaar. moo tax tout bi ñu waxtaanee ma déglu leen xam effort ni ay effort ñu ngi fi xam nañ ne volonté mi ngi fi li des mooy état accompagné pour nag jógee niveau deux dem niveau trois doo tëb da ngay jaar ci yoon wi. léegi nag moo tax ma ne dinañ ci defar benn dossier xam ne sax ministre de la santé xam na ko mais du tere ñun dañ def suñu warugar def ci benn dossier porter plaidoyer bi. teg ko ci taabalu kilifa yu mag yi pour wax leen en li nga xam ne nii moom la Kaolack bëgg. ca diwaanu cees moom soxna yi euh, dund ak ab laago dañ faa daje ngir waxtaan ci seen i jafe-jafe ñoom nag li ñu jàpp mooy amee ab laago warta nekk gàllankoor na ci seen wàllub liggéey waaye li ñu nemmeeku mooy bu ñu jëlee seen i dossier yóbbu ko ca fonction publique ba daanaka kenn du leen euh, faale mu di ay jàmbat yu ñu yëkkati ci kanamu ki jiite action sociale ci ministère de la femme reportage Cheikh xamante ni dañoo ànd ak laago jóge woon ci région yu nekk ci réew mi dikkoon fii ci diwaanu cees de gis ne lii leen dal warul tax ñu boddi leen ndaxte am nañu ay jafe-jafe yu bëri yu ñuy jànkoon jànkonteel. tabax yi nga xamante ne dañuy tabax duñu bàyyi xel jigéen waaye laago yi rawatina si hôpital yi ndax boo tollee si jur ak wasi di ëmb di wasi nga dem. hôpital problème rampe amu fa nga war a jàll mënoo jàll surtout nga yor fauteuil roulant wala ay béquille lali mu kawe nga si kuy raam nga war a def visite yooyu yëpp nekk na loo xam ne ay jafe-jafe la si femme handicapée yi. nga jàng ba am sa diplôme ñu wax la jël si benn poste ñu ne kii kat duñ ko jël ndax way laago la discrimination bi ci lieu de travail daal wax dëgg yàlla ku si mën a jàppale ku si mën a jàppale dina dinañu di gënal lool ndax sous emploi bi bëri na lool lool lool ak chômage bi ci ci way laago yi surtout ci jigéen ñi. docteur Aram Top Sène nekk directrice générale bu action sociale ci ministère de la femme wax ne daañu def seen kéemtalaay kàttan ngir jàppale jigéen ñi nga xam ne dañoo ànd ak laago am nañu sax ay programme yoo xamante ni nësër nañu ko ngir ñoom. des na fukki programme ak benn yu nga xam ne ñun ñu ngi koy liggéey am na ci texte yu bëri yu nga xam ne déjà pare na ba ñu jébbal ko chef de l'État. am na yu nga xam tamit ñu ngi koy travailler parce que point focaux yu formé nañ leen. directeur général bu action sociale wax ne nag dina def kéemtalaay kattanam jote la baatam fépp ngir nag soxna yi nga xamante ni dañoo ànd ak way laago ñu di leen sedd ba fa ñuy nasee ko nocci de ñu am fa baat. bokk na ci li ñu doon junj sànq ci euh, bopp xibaar yi muy jafe-jafe yi mën a am euh, ci wàllum pétrole njëgu bërigo gi boo moyul mu am ab yokkute ci àdduna bi ak Sénégal li ko waral euh, crise bi amee fële ca golfe rawatina ci arabi Saoudite samdi ba léegi ak seeni bërëb yu ñuy jëlee pétrole te ñu yàq ko secrétaire général bu CNTS FC foofee la syndicat liggéeykat ci wàllum pétrole ak gaz affilié jàpp ne état bu Sénégal li mu war a njëkk def mooy fay bor bi mu ameel secteur pétrolier mi ngi toll téeméeri milliards wala lu ko jege sax ci sunu koppar euh, teg ci ci wàllum énergie Cheikh Diop dafa gis ni naaj bi ci boppam la ñu war a gën a jëfandikoo ngir moytandiku jafe-jafe yi am saa su nekk ci wàllum pétrole Habib fay ak Modou Diop ci reportage. ca lañ nar a jëm muy yokk njëgu pétrole gi loolee la ko waral moo di crise ga nga xam ne am na ci pays golf yi rawatina it ca Arabie Saoudite boobu ak léegi am na juróomi at dëkk Afrique yi ñoom daañu ko yëg rawatina itam senegal loolee bu ñu sukkandikoo ci secrétaire général bu CNTS/FC moom mu ne koomuk réew mi boo oytuwul daana sooxe. crise bu amee ci réewu golf yi ñaare day metti ci pays yi réew yi nga xam ne comme suñu réew yi nga xam ne. dañu dépendance totale lañ am ci ci ci pétrole te défi te crise bi nag déficit bi nga xam ne moom lañ se dafa am solo cinq pour cent consommation journalière moo nar a nekk déficit loolu bu amee te defuñu ci dara mun na jur ay jafe-jafe ci wàllu économie réew yu mel ni suñu réew yi nga xam ne dépendant lañ ci wàllu euh, pétrole te sax bor bile l'état wu Sénégal doon na loo xam ne lu mu war a gaaw fay la mbaa lu ko mooy rek wàllum pétrole gi dana am ay jafe-jafe. loolu nag dafa tekki ne su fekkent ne crise bi avancé na prix yi day gën a yokk ci bitim réew ñi daan dem di jëndi ba ñu yoreel leen bor bi def leen a jural ay jafe-jafe pour ñu fonctionner pour ñu continuer di importer y compris la SAR donc buñ ko fayul boo leen yi yokk bitim réew. yaakaar naa ne seen kattan ci wàllu finance dootul leen may ñu dem jéggaani pétrole indi ko ci réew mi loolu nag dafay jur perturbation yu mag foofu laay gën a insister. système solaire loolee ci la Sénégal war a suqandiku ngir rek jafe-jafe yi nga xam ne wàllum hydrocarbure dana ko jur ñu bañ ko yëg bu baax. énergie renouvelable yu mel ni solaire ak yeneen source d'énergie parce que am na yeneen ba tax na loolu xalaat bu rafet la te am nañ yaakaar ne ñu ngi ciy liggéey wax dëgg yàlla énergie solaire ci Afrique waroon na nekk suñu priorité état dëgg la Sénégal am na pétrole am na yaakaar ne fii ak ñaar ba wala ñetti at dinañ commencé production bi waaye loolu sax bu amee terewul war nañu développer xam-xam bi war nañu développer aussi kàttan bi ci wàllu énergie solaire. ci fàttali njëgu baril bu pétrole bi mi ngi jar ci lu toll ci juróom-ñaari junni ci suñu koppar te boo oytuwul daa gën di yokk ay bés yii di ñëw. jërëjëf bi Faye léegi léegi dañuy dalal la Hadj Assane ci li yéen a kaay xëyee tey. yéenekaay yu bari xëy tey musiba ga xew biig ca île des leen akub excursion bu mujj cib gaal gu suux observateur ne gaal ga ñeent ci ña ca nekkoon faatu nanu fanweer ak juróom rëcc ca bokk na ca ñi rëcc juróom benn ya di doomu France ñaar ña di doomu Allemagne ñaar yeneen doomu Suède akub doomu Guinée Bissau observateur ne ñoo ñee rëcc ci accident bi nag ci suba si lañ leen di delloo si ci biir Ndakaaru guddi gi yëpp nag élément sapeur pompier yi ñu nga woon ci wàllu géeg taxaw gi ci njiital lieutenant colonel Michel Diatta ci ndimbalu marine nationale bu Sénégal observateur l'observateur wax nit ne bi mbir mi xew président de la république ci boppam dem na masta wu ji njaboot ya fa naka noonu it euh, xoolal boppam wàllu taxawu géeg wàllu géeg fa na ci toll diirëb ñaar fukki ji minute moom président Sall ma nga fa woon joxe ndigal ku mel ni ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye nekkoon ci bërëb ba ak it soxna Aminata Mbengue Ndiaye ñu dénk wàllu napp mi naka noonu it seen naatango yore wàllu forces armées Sidiki Kaba Sidiki Kaba bi yenn ci yéenekaay euh, ma nga woon ci bërëb ba médiateur de la république naka noonu kilifteefal réew mi ba fa mu gën a kawe dale ko ci président ba ci ministre yu bari ñu nga woon ca taxawu gi ñeel gaal gi suux foofe ca îlot Serpent Les Échos moom la muy tiit mooy ay disparu am maanaam ñu réer marde im si ci suux ak gaal gi yéene kaay bi ne ci wallu gi nag kenn jiituwu fa nappkat yi Soumbédioune yebal na nit ca îlot Serpent ay pompier akub psychologue ne ko noonu draak yi càngaay ngir ñu rëcc ci géej gi ndax fa lañ mujjee fanaan accident yi ci tali bi moom it di wéy vox populi xëy ñëwaat ci accident bu métti ba woon démb ci suba ca faatu ñaar fukk ami gaañu gaañu naka noonu it beneen tata bu këpp démb ci suba bay engagé péage bi ca Padois ñu bari am cay gaañu gaañu las fësale nataalu wata bu moxoñoo ci xëtëb bu njëkk ne mbir mi moom musiba mbàmb kumba dëgg la la tribune wa dem njaga boo xamante ni tur wa rekk a ca des ma nga moxoñoo tasaaroo yéenekaay bi ne njaga njaay yëg seeni musiba musiba ga woon nag ci tiwaawoon pël ak waay ju naan seer mbeng ju fa génneb jaasi song commissaire jeeju bu police a xel maa neexul yéenekaay bi ne atum 2017 sax entré woon nañ ko ca centre psychiatrique di fanuy faje borom xel yu naqari ci caaxooy ca docteur Ahmed Saloum Diakhaté mooy ki koy toppatoo di ko suivre boobaak léegi yéenekaay bi xamal ñu ne ginnaaw nag moom Sayer Mbeng bi ñu ko fajee ba noppi ci hôpital principal jóge na fa ñu yóbbu gendarmerie bu Tivaouane Peulh garde à payug l'hôpital gi toll ci juróom-benn fukki junni dante bàyyi jëlanu fa tey lay ngir pay gi meneenum mbir ci moom mi nga xamante ni moo ndamoo yàquk stade Nelson bu Mbàkke ma nga jamono yi ci loxo polisu gox ba sëriñam nag ci kàddu sëriñ Abdoulahi Mbacke ci yéenekaay bi sàkk ñu bàyyi ko ko moy ñu ne mu daal di dem joxe boppam police source a dëggal wax ji ne xalifa sëriñ maam Mor Diarra Mbacke mu ngay artukat dem jébbale boppam ne prisonnier suñu bàyyiwul ñu ni jàpp ci yàqu stade Mbacke kaso yi nag ci Sénégal ak la fay xew yéeme loolu anam yu téwin yu bon lu jéggi dayu ci lim ñu nu fay def yàggaay ba ca duñ la àtte loolu lépp ndax yéenekaay bi direct info xëye ko defa blaaj sax ne ana ñi nga xamante ni ñooy incarné justice bu Sénégal lu ñu def wala jéem ci mbir mi ngir ak tan am muy juge yeeg avocat yi ñu duppee les hommes noirs yéeni kaay bi dem ba def sax laaj ne mbaadu dunu complice ci doxin wu bon bu justice bi wàllu politique ak président parti réew mi Idrissa Seck mi observateur jàpp ne dafa dugg xalwa jamono yi waral yéeni bi xëye secret ci na mu toogee ci googee fatu yéeni kaay bi jox kàddu ñenn ci jegeñaaleem ñuy leeral benn kenn munta poussé Idrissa Seck muy wax ay kàddu yoo xamante ni du yu am solo ba ca topp mooy moom président réew mi ñu ne dafa comprendre ne léeg-léeg noppi gi da caa baax ci mbir yi Oustaz Babacar Gaye ak Yankoba Seydi di responsable parti bi ñu ngay wax ne mu nga ci liggéey bi gëstu xalaat ak fent yoon yi nga xamante ni ñoo fi jële Macky Sall ca loolee àndul ak i werante observateur ne ci ay projet nag moom président bu parti réew mi taxawal ab l'école ca la ab daara ci diwaanu Thiès ci blongoog université Princeton leneen lu observateur xamle ci Idrissa Seck ak Fatou gi jamono yi mooy Alaaji Malick Gakou seenu xaritoo da caa doxee gën a dëgër na ci li nga xamante ni mooy temps fan yi ak juddug sëtam sport naka noonu ak it julli julli ca waxtu ya moom Idrissa Seck ñu fekki constitutionnaliste bi di Ngouda Mboup ci le quotidien mu ca moom mooy chef de l'opposition lu jëm nag ci tolluwaay la ca PDS Ngouda Mboup am na ca xalaat ndax moom dafa gis ne mëneesu la nangu démb courant bu mel ni génération du concret ba noppi di bañ tey courant beneen ñu jeexalee sport geeg basketu góor ñeeg championnat mondial ba woon ca Chine ak lajje gi fa Sénégal jële ci observateur bi moom la ko métti mooy waxi koparin ci am loo xamante ni bu nu ko méngalee ak li nu defal basket bi ci Sénégal daanaka du dara ay miette la ko tuddee Juan Dalmeida moom di basket katub Sénégal ci coupe du monde bi dafa gis ne ay taf yëngal dabb daaxe dëgg lañ ca demee gaawtu bu bari ay rëq-rëq lool ci les échos la ko waxee record moom xëyee football bi ak Naples Liverpool tey 19h lay doon match ci biir match nag lay doon ak Sadio Mané ci attaque Liverpool bi seenu caaxi Naples yi waaye Kalidou Koulibaly ma ca défense ab Naples ba ca fas yéene jaamaarloo ak moom moo waral record ne Koulibaly ngir stoppé Mané jërëjëf El Hadj Assane Gueye mu ngoog fi la ñuy yem ci xibaaru digg bëccëg yi sant leen gërëm leen tamit ak euh, àndandoo bi 19h30 incha allah rédaction bi dina leen yaatalal yeneen xibaar di sant it ñëpp ñu jàppoon ci liggéey bi ba mu yemb di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm.